wala ngeen doon dem non li may wax ni su ngeen doon dem ci ay instance di ko régle ci ngay xam ni seen parti li mu nekk parti bu ndaw moo tax mënul am coow. dégg nga ba taay ñu naan la bërigo bu deful dara du yëngatu. APR du parti bu ndaw nag. yow lan mooy baromètre bi nga xam ne moom mooy tax nga jàpp ni lii parti bu ndaw la. mooy li mooy li nga ma wax rek li nga ko méngalee ak ay parti socialiste wala ay. ay PDS xam nga parti yooyu non man dama la defaral jeunesse ne la par exemple parti socialiste ba muy nekk ci mhm. boobu xëy na ñun ay xale lañ. wala même avant kenn xamul. Mhm. PDS mais xeexu UGTEL fii la ñu fekk. moo tax man na xeexu Cogère yi aussi fii la ñu fekk. mais mais xeexu Cogère laa la wax. <laughs> Cogère yi fii la ñu fekk ah du un ah. centième. <laughs> Cogère fii la ñu fekk du un centième li daan am ci jeunesse politique. ok. Mm, ma leen di encourager bu dee dañ dañ doon xeex je pense que aussi du dans le sens négatif ay ndaw fu ñu daje dinañ xuloo dinañ waxtaan dinañ juboo mm-hmm. mais tamit dinañ dem liggéey à l'essentiel mm-hmm. je pense que c'est ça qui est important léegi nag ci parti bi ba tey ci euh, yàlla may nañu suturaal ñu très sincèrement parce que Pape nga nga créer partie ñetti at ñu jox la nguur nga dem élection ñu renouveler la Euh, sénégal yi renouveler suñu confiance je pense que tey jii nii war nañu gën a góorlu suñu biir. Mhm. góor góorlu suñu biir mooy lan jàpp rek te yàlla tax. Mhm. ku ne bañ a jiital sa bopp. Mhm. parce que mën a mën a ñun ñëpp kenn ci ñun. individuellement doo dara. mbooloo moomu moo ñuy may doole. te ku xool yéene gi président Macky Sall am ci réew mi xam nga sànq wax naa la ko. nee naa la même bu dul ay affaire yaa ngi fi wala yaa ngi fii li ngay ñëw gis ay transformation yoo xamante ni c'est réel daanoo nos communautés commune daanoo communes dans loolu dafa nekk loo xamante ni ku ne daf la war a jox engouement bu war a tax nga gën a liggéey. Mhm. ku doon complot na nga ko bàyyi. kuy histoire na ko bàyyi kuy andi ay coow na nga ko bàyyi xam ne gis nga nguur àndul ak coow. Mhm. beneen mbir bi mooy. Mhm. gestion du pouvoir dafa ànd ak sérénité. gestion du pouvoir dafa ànd ak responsabilité. ok ba tax na. dañoo war a gën a def le focus sur ça parce que nag président tey man du ma ne euh, dama koy gunge ba pare di wut ay pexe. wala ay plan yoo xamante ne Jurbel na yàqu Cees na yàqu Mbuur na yàqu amul sens li ngay bëgg a wax man comprendre moo ko da ci bëgg a waxaale sa soxla man xaw ma lan nga bëgg non li ma bëgg a wax wax man c'est un message que je lance aux responsables de mon parti waaw da nga ci gis ay comportement yoo xam ni apprécié wuloo ko apprécié wu ma ko ok ma bëgg nag vraiment ñëpp nañu taxaw mhm. xam ne benn bu ñu doonoon moonu may nguur mhm. ñu defaat nii amaat ko leneen luy ñëwaat aussi kon bëggaat ngeen ko nguur mais mais Pape waaw bëggaat nañ ko mooy ah mais attends. mais la affaire seen dernier mandat non waxuma no attends. non non non attends. Euh, Pape Ngagne euh, madame le maire Pape Ngagne fi ma jëm dafa leer de APR c'est un parti pourquoi on crée un parti pour la conquête du pouvoir et gérer le pouvoir mais également améliorer les conditions de vie des populations. mais waa PS ñu dégg de say allié lañ. waa AFP ñu ngi lay dégg de say allié lañ mais su ma nee APR c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar. non. ñun ñëpp ñoo ànd. <laughs> li nga wax. xam nga waxoo loolu parce que message bi ma njëkk a la waxoo loolu. parce que message bi ma dama waa parti socialiste ñi ngi lay dégg ci li nga wax. waa AFP ñi ngi lay dégg say allié lañu. parce que message xanaa ma wax ni ma dañu lay ànd ak yow. ba nga am nguur après nga continuer pour ut kaw ñoom bëggaat ñu gunge waat la. ci dynamique boobu ngeen bëgg a nekk yéen waa yéen yéen yéen waa. boo ma dégloo rek dina leer. message bi ma lancé. Mhm. bi may introduire sama propos lancé wu ma ko waa PS lancé wu ma ko waa AFP ci sama waa parti laa nekkoon. Mhm. xëy na yow yaa raam ba dem ci ñoom c'est des alliés que je respecte ñoo xamante ne. d'accord on a tous léegi nga ni nga ni da ngeen bëggaat nguur. déggoo ma ne la. waaw. coalition Benno Bokk Yaakaar. d'accord muy APR. waaw c'est un parti qui la là. yaa ngi dégg. Mhm. donc tey jii nii ñun mission bi ñu am li nga xam ne moo taxoon ñu créer parti bi mooy liggéeyal askan wi. Mhm. ndem ci liggéey boobu ci loolu lañ nekk. je pense que tey jii nii amul dara lu mën a tax ñu ne nañu nañu nañu bàyyi. Mhm. maintenant ak kan ak kan la ñuy àndal mais loolu parce man xam naa fi ma bëgg a yóbbu. fan laa la bëgg a yóbbu. xam naa fi du ma ko wax. mais li ma lay wax mooy ne que xam na bu baax lu muy wax. non mais ma ne waxuma. non xam nga Thérèse bu taxee fi naan xam na li muy wax loolu wax euh, Thérèse bu taxee fi xam na li wax loolu wax ju yàqu la Thérèse bu taxee xam na li muy wax. loolu non bëgguma la yóbbu fenn lu dul yow da nga ni ma dangeen bëggaat pouvoir nga ma wax. loolu nga mu wax. xam nga da ngeen war a da ngeen war a da ngeen war teere teere seen ay këréel parce que da ngeen ko bëgg da xam nga yow mhm. xam nga dima la wax dafa leer dama la ne pouvoir dafa ànd ak sérénité. waaw dafa ànd ak responsabilité. Mhm. mais ànd ak liggéey. ok te askan wi dafa am lu ñu jox. Mhm. nañu jàpp ci loolu liggéey te yàlla tax. ok ci nga ma laajee. ma ne la ban appareil politique mooy jot nguur ba pare ne da koy bàyyi. mais yow li nga foog li nga bëgg a wax mooy est-ce que président Macky Sall day présenté waat loolu nga ma bëgg a wax. man xam naa ne fa nga jëm ak man. ma bëgg la ne nag président Macky Sall wala du président Macky Sall y un système qui est là appareil politique bi laa la wax. Mhm. li ma wax leer na Pape. d'accord appareil politique bi notamment. mais li ma euh, euh, li ma bëggoon mu leer ma rek mooy loolu mooy kon peut-être euh, sans président Macky Sall lay nekk. xaw ma. ak lépp lu mu mënta doon dama la ne appareil bi laa la wax li ma wax kay leer na Pape. d'accord non leerul de. ak a leer sinon leerul. madame le maire c'est-à-dire da nga wax li ñëpp wax rek mais leerul ak a leer non non da nga da nga wax li ñëpp yi wax rek mais xam nga ni leerul yaa bëgg a te man loolu man loolu man moom vraiment ah, xëy na peut-être dans l'avenir xëy na dina a soppeeku mooy seen seen seen seen tëgg ngeen di fecc xëy na dina mës a soppeeku yéen waa APR muy wax lu jëm ci euh, candidat président Sall di ci mandu à ce point euh, mais da nga wax dafa ànd ak sérénité dafa ànd ak wàññi mais dama gisul ngeen doxale ko ci kaaw Moustapha Diakhaté gisuma vraiment nga cest di dire ku am benn position rapidement ñu dàq ko euh, ci ci ci ci euh, ci ci poste comme comme ministre conseiller euh, jóge fa dàq ko complètement ci parti bi mais loolu est-ce que est-ce que loolu ànd na ak ak li ngay wax. ni mais xam nga soo ne ku am problème rek ñu dàq ko c'est comme si APR dafa dàq ay militants yu bëri le cas Moustapha Diakhaté kese la APR mës a taxawee dàq militant. li may wax leer na képp kuy responsable APR ak kuy militant ak foofu foo mën a nekk. Mhm. c'est la première fois. APR mais dafa waruloon am. mais treize loolu dafa waruloon am. lu tax warul am. ndax lu tax warul am. c'est-à-dire man mu ak mënu ma comprendre que. ci ay lan mooy parti politique. waaw lan mooy parti politique. parti politique association la. ak liberté. yu am ay text ak liberté am ay règlement waaw am code de bu leer. Mhm. boo xesee ba ne dama jënd carte APR. mais dafa am des règles yoo xamante ne waroo koo wàcc. waaw mais mais nag am na loo xam ne boo ko defee sax. est-ce que xam alliance pour Macky Sall la est-ce que alliance pour Macky Sall la boo ko defee est-ce que alliance pour Macky Sall la. am na loo xam ne alliance pour la République la. te man gisuma benn déclaration wala benn kàddu Moustapha Diakhaté bu génn la République. déglu ma alliance pour la République boobu mu doon moo tax ma ne la. ay règlement intérieur la statut la code de conduite la képp ku taxaw di ngaa jënd euh, carte APR dangaa war a respecter loolu boo demee ba ne nag da ngay taxawal courant wala mouvement wala leneen loo xamante ne danga nga ne gisatoo sa bopp ci biir da ngaa autoexclure sa bopp sax d'abord loolu la. donc tey jii nii APR lu mu des encore une fois. du loo xamante ne mais dafa dafa dafa wuute ak say recommandations quoi yow. dafa li ma gis ci cas sa Diakhaté dafa bokkul ak lépp loo gis dafa am limite. te gis nga boo taxee ma doon junj loolu. pour ñu bañ a eggati foofu moo taxoon ma doon waxee foofu mais encore une fois un parti c'est un parti boo nee da ngay jënd carte parti bi tu es soumis aux règles ak li nga xam ni lépp mooy code de conduite parti bi. Mm-hmm. n'empêche nag séparation moom du loo xamante ne vraiment neex na. Mm-hmm. waaw du loo xam ne aussi dañ koy souhaiter. Mm-hmm. mais aussi bu fekkente ne wax ci biir néeg wax ci biti. nit ki taxaw ci ay position je pense que parti bu jëlee responsabilité am aussi loolu man awma ci lu ma ciy wax. Mhm. da ci ciy ànd préciser aussi que c'est la première fois muy am. Mhm. parce que pas aussi ñu joxe impression ko waa APR chaque fois dañuy dàq ay militants non non. Mhm. benn yoon lañ ma sa dàq. militant non non waxuma na nekk bu c'est-à-dire mu nekk fukki yoon ak mu nekk benn yoon dama bëgg nga jàpp ni benn la exclusion la ci parti. waaw bu ñu jàpp ni parti démocratique la. <laughs> est-ce que exclusion ci parti c'est une première nga ko gis dans le champ politique sénégalais non. mais loolu li ngay wax ni du tontu bi aussi man. non mais mais parce que dañ ko bëgg a dramatiser. egg non non dramatiser non parce que tey jii ni man Thérèse su ma amee lu ma metti te mënu ma ko waxee fi ma ko war a waxee mais mieux vaut ma xam ne su ma demee nag ba wane ne que lii ak lii àndatuma ci tii lii ak lii laa nekk mais les gens ont tiré les conséquences. mais am est-ce que am na fu mu koy waxee. est-ce que am na ko. Ah, est-ce que am ngeen am ngeen ay bërëb yoo xam ne fu ngeen. ko mën ko nga laaj ko xëy na dina la ko. d'accord treize ci leneen ci wàllu politique dafa am loo xam.